Mhm. fen sonko ñëpp la jommal il faut dire la vérité mhm. kooku nag moo tax il faut ay sonkologue juddu mhm. di ci bind di di di décortiquer affaire yi <laughs> mais bakaay nag ci ñooñ la bokk moom <laughs> yaa ngi dégg Moustapha léegi faram fàcc ci ci ci yu nga wax mooy candidat yi waaw doo ñëw ci sonkologue bi ah non ma day tooj rek quoi ay sonkologue <laughs> da lay tooj xam nga léegi maam ci sonko ba léegi maam ci ak résultat yi sur le benn affaire moom rek laa gis ci candidat yi maam koo xam ne maam ci parti maam coalition coalition yëpp dem nañ Europe tournée ji dem nañ Amérique tournée ji. Mhm. mais kenn gagné fa. moom demut fenn depuis deux mille vingt et un la gëj a génn Sénégal. Mhm. xaalisam diaspora bi indi. élection yi lu mu battre kenn battre ko loolu nag mbiru yàlla la léegi nga seet ñoom. Amadou Ba soo jàngatee surtout Amadou Ba ci wàllu résultat yi. Mhm. ba ñeenti nu ñu leen ñu sol man damay wax ne Amadou Ba résultat mi kuy jàng dëgg bettu la li tax Macky la duggut ci campagne bi wax naa ko Aliou laaj naa ko mën a ko mais président na la mën a nekkee directeur campagne Amadou Ba te du te du wàcc campagne munoo et pourtant mi ngi maam maam mi ngi joxe ay directives. Mm-hmm. mais parce que Macky la ñu ko xam ñëpp xam na ne ci sondage lay dox. gisoon na lii. Mm-hmm. man ma ne ma euh, Amadou Ba lu ko yàqal ñaar bokk na ci xeex bi am seen biir seen clan yi loolu bokk na lu ko liquider mais Amadou dafa defaat beneen erreur bu garaaw élection yi ba mu desee trois jours. mu def benn sorte boo xam ne sorte boobu ko yàqal lu bari mooy quartier général. Hmm. waaw lu lu wax foofu. xam nga quartier général Malal du ko posé benn question question bi da ko déstabiliser. Mhm. surtout affaire deux femmes yi. Mhm, mhm. man dama nañ su ma bokkoon ci cellule communication wu Amadou Ba Amadou Ba du dem ci émission boobu. Hmm, quartier général baaxul woon. baaxul ci moom. parce que Amadou Ba du nit ku doon dem maam ku mën débat hmm. contradictoire ngay posé fii Amadou Ba mosul def loolu ci soiram. dama nga wër nag laa la wax. Amadou Ba musu tokki télé lu mat quatre journalistes tim kenn ku nekk di posé question déedéet Amadou Ba yu mu def sotti yëpp yii la may mun a ndiir Papa Ngagne Ndiaye mhm. amul beneen bu mu xanaa barki démb bu mu def seen people te kenn naa taxaw di ko posé kon loolu dafa nekk lu ñuy mais lu toll ni quartier général plus de cinq journalistes ak ay animateurs ñoo xam ne duñ professionnel ci journalisme mu toog di posé question mais bul xam fan lay yëf jour boobu benn xale bu jigéen dem Sorano na da nga jàppale dëkk bi mu gis vidéo yooyu soo taxawee na man benn soxna laa am te kooku di wax na ne yow sa soxla nga sa soxna la mais loolu dañuy wax ne leen yow ndegam amoo sañ-sañ di wane sa soxna di maam assumé wu sa soxna yow kenn ñëw di yor laa dénk rek boo seetloo Ousmane Sonko da cee profité. Mhm. su nee naa Ousmane Sonko moom dafa xeex ak Amadou Ba dernier souffle ba mu jeex ba mu jeex parce que man wóor na ma wóor yàlla nag gisuma jomaay soo ko laajee Sonko moo nag indi sa ñaari jabar ñu ah présenté ko ah man ça m'est sûr et certain ah ku ko gëstu wala ku leen jege laaj leen ko Sonko mm-hmm. bi nañ wax leen Anna Diamanka jabar Ousmane Sonko daa divorcé daw na génn mm-hmm, loolu réussirul mais Ousmane Sonko ñëw dóoraat leen beneen missile génnee ñaari jabari jomaa yi moo ko présenté boppam ne dama leen présenté sama ñaari soxna yi ñaari ñaa ngi nii kii aawa kii ñaari ñoom ñaari ñëpp fay maam expliqué indi ci kafak ree mm, mm, mm, message boobu jàll na ndegam kii am na sañ-sañ taxaw di wane soxnaam kee taxaw di ko nëbb mu ne loolu rek war na joxe différence mm-hmm. ñaareel bi aussi tamit booy dañ ko laal ci fenn mbiru patrimoine bi jomaay dañoo départ mu génnee ko ndegam jomaay moo taxaw génne patrimoine mi kii rek ko nëbb ko nëbb na ñaar mhm. mais affaire bu matrimonial da koo nëbb mhm. patrimoine am tamit da koo nëbb mais nit su fekkee ne dañ laa bëgg a jox réew loolu nga koy nëbb nit ñi dañuy dute ci yow loolu bokk nañ lu ko kaw mhm. nga ñëw ci ñoom Khalifa Sall daanaka euh, liñ am mi béttu nit ñi Moustapha euh, Khalifa damay wax ne Khalifa yàqulut boppam de mais Barthélémy Dias boo ko yàqal xam nga gis nga ku yàlla gërëm da koy moytoo sa da nga koy moytoo saaga li mu wax Ousmane la ko yàlla duma. li mu wax Ousmane Sonko la mhm. ko peuple bi duma. maanaam peuple bi duma gi ko duma. mu jotee Ousmane Sonko. moo moo dem jàpp résultat Khalifa Sall. mais dama lay moom laa lay expliquer dama la moo ko yàqal parce que contentieux bi mu am ak Ousmane Sonko contentieux bi Ousmane Sonko mais peuple bi la doon def ak contentieux peuple wan ko ko nag léegi wan gi ñu ko wan Khalifa maam Barthélémy Dias Khalifa Sall lañ sanctionné nga ñëw ci euh, Amadou Mamadou la Aliou Mamadou kii. Euh, la Mamadou Dia Aliou Mamadou Dia vraiment moom départ bu am solo ñu toog fi di ko wax muy mobiliser ma ne la daanaka ñoom ñett rek ñooy def campagne. Mhm. mais dañoo dem ba ci dernier virage ba ma yum këpp yalwaan gi. waaw yum def na benn sorte tamit. sorte bu baaxul. Mhm. naan réew waruñ ko jox ñoo xam ne amul expérience boobu mi ngi wax jomaay. Mhm. mais yow nga ànd ak Pastef ànd bi rafet. Serigne Moustapha fu mu toog di wax Ousmane Sonko nu mu mel ci moom ah, na ko doon muñ dana baax yow nga dem ak aussi tamit nit ñëpp bëgg la mais Cheikh su demee ba am benn ora bi mais booy passé fii ñoo jël vidéo am di ko taane bëgg bëggee bañ bëri yooyu kan moo ko tasaare booy passé fii la nga dem ba dernier moment bi dem toog ci télé di leen jéem a lancer défi maam yéen yéen benn candidat ngeen amoon benn opposant ngeen amoon muy mm. Amadou Ba mais muy dóor ci ñoom di dóor ci bi daal nga ñëw ci Boubacar kama xawma bu ba pavé pavé boo seetloo sax dañ doon wax ne bokkoon na ci candidat Pastef yi mais dañoo départ mm. mu ne non man sama candidat bopp laa man nekkuma fi candidat kenn. après moom tamit tiire na ci expérience bi. Ah, yaa ngi dégg gars yi réew kenn du ko jox ko amul expérience. xam naan réew kenn du ko jox expérience ko daan la woon ne ñun gëmuñu la suñu la doon xool dañu doon xool ci yow sanction bi dal nga xool kon insuline Idriss Seck boo ko gisee mooy li mu doon wax Ousmane Sonko. xale ngaak ba ma demee wax ak yow ci wàllu beñe beeg yooyu noonu maam ni muy minimiser Ousmane ko di wax ko tu dëgg parce que la ma waxoon moom waxu ko booy nag yow daan la wan la man ak kii du sa morom maam yat yooyu ñoo dal insi lu ñeneen ñu waxutuma ñeneen ay ñu am ci dul commenté ci waaw déedéet Anta Babacar mënul am ah xam nga parrainage dama ko wax fii dama ko mosoon wax sama benn analyse fële télé ba man leen Anta dama gëm na ne parrainage am yi da ko amee ci ay fichier man loolu laa gëmoon man hmm. nga ñoom eh, gars yi dañu am ay données personnelles man hmm. na ñoo surtout ngay def comme seen nekk commerçant boobu xam ne bu mag nga entreprise bu mag a mag a mag mais pour nga hmm. am électement pour leen ma dix personnes ah sa élément yooyu yi liggéey mën nañ la relation nga dem parrainage bi nga dem mais mu defaat beneen erreur ci biir campagne bi nga nekk di dóor ci Diomaye Faye lan la def yow kay xeex bi kenn la. Amadou Ba est-ce que erreur la woon parce ah. bi mu tiire xam nga lan la danaa gars yi dafa bëggoon xam ne maa fi rek mais moo gën a xam ne tiire bi Amadou Ba kii kii tontu leen Basirou tompu leen Moustapha xam nga gars yi dama ko wax dama benn kilifa bu mu ne ma xam nga ne kii suñ bëgg Diomaye mi suñ bëggee président ëllëg mu taxaw ak ñoom Poutine ak ñooñu mais du ko coûter cher. Mm-hmm. biir question bi tëmbal naa ci benn pi benn question ma ne ko mais 19 candidats nga sepp ci Diomaye loolu noo ko jàngatee kon dañoo dem ba gars yi tiirtuñ ci Amadou Ba de mais Diomaye mu nekkoon favori bi maam ñoom def nañ ko président te egsiwul nga seet Anta Babacar Ngom attaqué na ko tontuwu ko nga ñëw ci Pape Djibril Fall xoolal nit ñi ni amee woon avenir ci moom mm-hmm. muy attaqué euh, euh, muy attaqué sa kii nii muy attaqué Diomaye fan la mujj mm-hmm. daanaka kon nga xam ne mbir mi yàlla da koo leeral ba yàlla gërëm daanaka boo ko attaqué rek sanction bi day dal. Hmm. loolu moo feeñ. Thierno Alassane Sall. waaw waaw Thierno Alassane Sall nag man moomu ci gën vraiment. Hmm. aussi moom tamit daanaka boo seetloo loolu da koo dal. dem na ci côté Kaarang xaw ma. Hmm. waa pour waxtaan ak booy booy di ko sonkoriser mu jël micro bi di di dàgg ak ñoom. ñooñu ay booy ñooñu ay xale lañ ñooy dàgg sant ak ñoom yow dañ laa tax a jóg koo jox ñoo xam ne fu toog dañ di sant di wax si jomaay loolu lépp da ciy feeñ maam il faut que ñu xam ne jomaay nekkutoon seen adversaire. seen adversaire kenn la woon mooy Amadou Ba mais malheureusement dañu maam dañu seen missile hmm. yi bi dañ ko raté kiñ teg seen cible la kooku tegu leen kooku moom kenn la teg cible mooy Amadou Ba te wan na ko parce que hmm. xeex mu doon xeex ak Ba da ko doon teg ci diplomatie hmm. Sonko moo doon xeex di dóor moom muy wax ci programme bi nekkee soo gisoo ñoom ñaar fu ñu tàqalikoo daanaka amu kii daanaka Basiru dafa gën a jëlaat beneen aura bu gën a yóbbaat ci beneen aura bu boo seetloo slogan bi yëpp la dëkk bi demee dañuy bale dëkk bi bale léegi-léegi gis naa benn journaliste bi ngi naan RTS dañ ko war a bale ba mu set hmm. kon Moustapha nga xam ne ñoom euh, su ma ko jàngatee rek mooy ku yàlla gërëm da koy moytu joomaay hmm. du joomaay mais Sonko la yàlla gërëm jomaay tafu ci Sonko. ok maam dina dina ñëw ci dina ñëw ci jomaay bi après mooy mooy stop ma bàyyi la nga soufflé. Hmm. Euh, ñu ñëw ci imam imam ak résultat yu doy waar yi nga xam ne yeneen candidats yi am nañ ko. Euh, man Sonko leen ëpp doole wala Bassirou leen ëpp doole wala ñoom ñoo liggéeyul. no Sonko moo Sonko cest à Sonko wax dëgg yàlla kuy Sonko toroxal la moom wala mu gàññe la du gàcc ci jamono ji ñu toog Sonko ñëwul daa yeble. waaw mais mais mais Sonko daa ëpp Sonko jarul muy ñëw Sonko Sonko bu ñëw day ëpp. xam nga man bokk na ci li ma gën a yem ci ci Ousmane dama jàpp ne fii ko yàlla teg foofu la gënee. Mhm. parce que Sonko. ñëpp la doon seen kilifa actuellement. waaw waaw tey ñëpp parce que réew aussi euh, begaay mhm. gis nga kilifteef gi. Mhm. ñëpp duñ ko nangoondoo benn yoon. Mhm. mais dana am ñoo xam ne dañuy dem ba ñàkk pexe. xam ne lii la yàlla dogal ñu nangu ko. tey léeg-léeg dama naan dama tey damay dama naan kaawu bugaan. bugaan. ma ne bugaan euh, na nangu. parce que yéexantalu gii mu nekkee yëpp. yàlla may na ko. nangu mën ndax mënati na am. waa mais mais ñàkk nangu lii lay jur. Mm-hmm, mm-hmm. parce que tey lii tey bu ñi ñi ñi gëmee na yow nanguwululoo kii li ko yàlla jox te mooy kilifa gi amu fi morom tey def nga ne élection war na toll fii nii ba léegi buggaan farul fenn. Mm-hmm. xam nga loolu. ba élection yi jeex. ba ba élection yi jeex. mais loolu lan la ko mën a yàqal à l'avenir. noonu deuxième tour la doon xaar. deuxième tour fan lay am fii ci miim réew. xanaa moom déggul li kilifa gi wax kilifa gi nee na dañuy gagné ay soixante soixante pour cent. lépp yemale nañ ko ci benn fan. Sonko yemale na ko nga nga ne di xaar man ak non ñàkk dégg ñàkk dégg a bon. yow Sonko nee na élection yi. da koy yemale ci benn soixante pour cent lu mu ndaw ndaw dinañ ko gagné. Mm. léegi yow nga dégg Sonko wax loolu ngay nit di di xam jamono xam ni mbiri di doxee ak mayu yàlla ngay sikki sàkka di xalaat ay deuxième tour mais ana sa xam-xam. Mm-hmm. donc man li ma bëgg a wax Moustapha mooy actuellement su ñu bëggee nangu euh, tey nañu nangu li yàlla jox Ousmane Sonko boo ko nangulee da ngay da ngay noppalu gis nga euh, gis nga am kilifa dafa am solo man dama jàpp ne Bachir président Bachir Diomaye premier qualité bi ko yàlla def mooy dafa nangu kilif téef ci Ousmane Sonko. Mhm. da koo nangul ne ko yaay sama kilifa. wallaahi al démb damay wax ak benn kilifa gu màgg genn kilifa mu ne dafa dem seeti Ousmane sonk kooku xarit la ci Ousmane sonk ne bi mu ñëwee fekk Ousmane am na ñu muy recevoir nee na Bachir ñëw daal di ñëw nuyu ko laaj ko ne ko looy naan kafe ngay naan walla eh, kii mu ne ko man kafe laay naa nee na Bachir dem defaral ko kafe daal di ñëw ne ko xam naa di nga xaar tuuti parce que kilifa gi moom léeg-léeg <laughs> mu ne ko suñ kilifa gi moom léeg-léeg jotaay mi day xaw a yàgg nga baal ñu daal di xaar tuuti nee na daal di dem dégg nga comprendre nga cest Bachir lu ko lu lu mu am tey nangu kilifteefu Ousmane sonk moo ko ko may te it man bokk na ci li ma li ma li ma neex ci waa Pastef yi dañoo nangu ne kii mooy seen kilifa. Moustapha dañu kilifa dañu am kilifa. mais xoolal yow mais Sonko ay ay nawlee ma fa nekk. Mhm. mais yow jàpp nga ne fii ku raw Balla Moussa Fafana mu ngi fi. Mhm. ci xam dégg nga Balla Balla Moussa Fafana ak mhm. ñooñu. xam-xam du pexe. waaw borom xam-xam du pexe dégg nga xoolal tey ku mel ni euh, kii Bekaay Sawaa ji ta ta Tahiru Sarr. Tahiru xoolal xel mu ñaw wi ak làmmiñ wu saf wi mais ñooñu ñëpp tey dañu nangu li yàlla def. xam ne kii la yàlla kii la yàlla def muy suñu kilifa mhm. Bassirou Diomaye lépp lu mu am ci àddina nangu kilifteef moo ko ko may mais aussi fidélité man damay wax ne ñiy bind ci wàllu xaritoo dégg nga xam ne xaritoo yu bëri tas na bekaay lan moo ko tas dangay dégg ñu ne jigéen a ko tas da ngay dégg ñu ne xaalis ko tas da ngay dégg ñu ne daraja moo ko tas mais xaritoo gi dox diggante Seydina Ousmane ak ba président Bachir fi seen jamono gën a méttee ci jamono difficile difficulté fa la xaritoo façon mhm. sa waay mu jàpp ko fidélité c'est-à-dire que loolu maanaam tey ñoom ñaar seen seen diggante bind yi ci nekk dafa rëy mhm, mhm. dafa rëy donc man dama jàpp ne tey euh, kilifteef mooy lépp te moom la yàlla indi ci lan laa doon waxati sax ba dugg ci affaire kilifteef gi maanaam jomaay nangu gim nangul ak Sonko waaw nangul gim ko nangul tey moo tax lii mu am mu am ko bari na tey ñoo xam ne dañu perte ñàkk du seen ñàkk xam-xam du seen ñàkk daraja du seen ñàkk dégg-dégg du seen ñàkk jub mais problème bi ñu am mooy dañoo nangoogul. imam da ngay d'accord ak ñu naan effet bi référendum la woon. non man daal xaw ma lu xaw ma. maanaam maanaam da ngay voté Amadou wala nga voté yi moo waral ñu bëri am si jafe-jafe parce que référendum la woon am na ñu bëri loolu la wax. non man daal xam nga li ma xam. mooy ci ay élection lañ de lañ doon dem. Uh-huh. élection yi sénégalais yi moom fu Sonko jëm fa lañ jëm loolu mooy li wér man keroog bi Sonko eh, génnee ne Amadou Ba tiire ci kawam. Uh-huh. laa ne Amadou ñàkk na. Uh-huh. waaw. keroog bi mu ne Macky Sall doonatul suñu kii. cible du doonatul suñu cible léegi cible bi Amadou Bala. te te Amadou amul doole du xeexkat.